sur internet Dakar Buzz bonjour bonsoir ça dépendra ci heure bi ngeen di xool vidéo bi maa ngi leen di jaar bu baax a baax a baax a baax tey nag ñi daal di dalal beneen gan gan goo xam ne gars yu bëri dañ doon laajte fan la ne exact li gan goo xam ne gars yi dañu bëggoon soxla mu wax gan goo xam ne itam bëggoon nañu am actualité tey ma daal di def déplacement ñëw ci këram alors kooku nag du ma leen wax kan la tant demuñu ba ci biir euh, ñu daal di koy découvrir tey ma ñëw ci këram on s'est fait vraiment ñu daal di déplacé wu ñëw ba ci këram pour mën a xool nu mu toogee waxtaan ak moom d'une manière général waxtaan ak moom d'une manière exceptionnelle amis chers internautes restez connectés restez concentrés suñu gan gi du kenn ku dut euh, xaw ma fan la ma féete ci kër gi xaw ma nu muy def waaye daal war naa mën a war naa ko mën a mën a mën a loxati salaamaaleykum maa ngi leen di xaare yeneen a ngi bi ah mais dafa mel ni saay maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lay siyaare dama laa bett tey de. Eh, eh, mon ami mon frère. mon mon ami de confrontation. waaw gis nga sama xaritu maa ngi lay siyaare. maa delloo siyaar. mais bett naa la tey kon yow nii ngay def di di di defaroo sa biir kër avant ngay génn. waa gis nga xam nga rek yéen saa xam artiste moom parfois dafa bagage dañ koy jàpp tal boppam. Mhm. mais dafay laaj yenn saa bu la yàlla may tuuti temps nga toog xoolaat sa image. xool li nga xam ne mu ngi commencé déborder. nga war nga mettre ko en ordre loolu waral tey fi mu toll ni ma ñëw euh, toog ni ngeen bett ma parce que nii laay mën a amee temps quoi moo tax nit moom saa ne rek nañ la fekk ci lu baax. mais surtout moment wu feebar bi dafay yoon sax nga nga toog sa kër defee fa lépp. waaw lii tamit ci moment bi ñu toll nga xam ne dañ ne restez chez vous je suis chez moi. j'ai resté chez moi. Ah. mais nag euh, euh, di xamal di xamal ne gars yi. Euh, ne leen di profité ci occasion boobu noonu nga wax léegi ci corona bi nga xam ne moo fi xew ñu gën a jëlaat ay matuwaay ci ñiy wat ni coiffeur yi ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy watu ak jigéen ñi xam ne ñoo dem ci marché ay ñi dem ci boutique yi ak yooyu yëpp moytu nañ moytu bu baax a baax ndax kenn la sangul kat sa taar la bëgg. léegi dama lay bàyyi yow itam nga daal di defar ba mu taaru nga ñëw ñu waxtaan. jeena may leen ma tuuti ma dugg ci néeg bi yeeslu ñëw à bientôt. alors d'une manière plus relaxe la ñu koy defee kër Papa jaay Coppet gis ngeen sànq dama ko bett fekk muy defaru kon moom dafa dafa dafa fonk dafa fonk image à chaque fois bu may ñëw rek. Euh, su ma su ma ko saa yi may ñëw këram noonu laa ko fekkee soit muy defaru soit muy sangu wala muy julli et ce qui ce qui est vraiment normal gannaaw bi ma la bàyyoo nga daal di defaru ba yànji. Mm-hmm. ah fi mu toll nii féex nga. waaw fi mu toll nii moom tarkal la. tarkal féex naa ngelaw laa ngi jaar fu ne. <laughs> jeex na acca dama lay bàyyi nga nuyoog internet yu Dakar Buzz su ko defee après ñu daal di mën a mën a xuus ci waxtaan wi parce que tey dañu war a waxtaan. Mm-hmm. acca nga yëkkati sa micro bu baax rek daal di Euh, Sénégal asalaamaaleykum àdduna bi ndax yaakaar naa ne àdduna mu ñoo ñu seetaan. maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte lool ngir jàkkaarloog yéen. yéen xam samay fans ngeen. te géej maa gis. te am loo xam ne da leen ump ci man. mu yitteel leen. te ma war leen ko jox tey jii loolu dama ci am mbégte pour jàkkaarloo yéen ñuy def ko. jeex na alors euh, Papa Ndiaye sa carrière kenn du ko présenté ci réew. Hmm. Afrique wala monde entier ñëpp ko xam. bu buñ nee Tange fii ci mim réew xanaa buñ nee benn ñaareel ba yow lay doon wala ñu ne mm-hmm. benn bi mm-hmm. donc dafay dafay doon loo xam ne wax nga ko waxati ko mm-hmm. waaye carrière bi dafay dox ñëpp di la bëgg ñëpp di la gis après gisatuñ la gisatu boobu nag loolu ne judd na fi ci ay wax Papa Ndiaye dañu ko liggéey Papa Ndiaye xel mi dafa dem Papa Ndiaye dafa mënatul lan moo waraloon toog bi waaw li waraloon toog bi dafa bëri ndax euh, xaj na nekkoon naa ci benn label boo xam ne lu may def dama leen di tàggu lu may def dama leen di sóoraale. loolu mun na téye sa carrière ci lu bëri. ndax doo génn waxtu wi nga war a génne même boo ko yëgee doo génn te artiste yëg-yëg la. yenn saa mu yëg lenn li koy dimbalee mooy mu am producteur yi bu ne leen man de am na fi mu toll nii nekk naa ci benn yëg-yëg. Mhm. parce que àll da dikkal. Mhm. ñooñu dugal studio nga génn. Mhm. mais bu fekkee ne amoo loolu instant bi aal boobu di ñëw ci yow. yow boo leen waxee ñu ne non il faut nga xaar wala nangam ak nangam dangay ngay dem ba nga xam ne sax loolu rek déjà baaxul ci artiste. d'accord waxuma laa nag. Mhm. Euh, bu dul aal boobu aal boobu ma la wax noonu. Mhm. waxantuma la nag nga xam dañ lay tëj te xamuñu tax ñu lay tëj. loolu artiste warut a tëju tëju yu ëpp yooyu. Mhm. Euh, artiste yëg-yëg la moo tax artiste bu yu bëri ku ci nekk am nga studio sa kër. ci grand yi laa Mhm. peut parce que ñu am moyen yi def nañ ko. Mhm. parce que inspiration instant bi mu lay dikkisee. Mhm. instant boobu boo ko boo ko wul rek. mun na naaw waaw. nag instant bi mu la dikk dikkisee noonu inspiration boobu noonu. da nga ko war a génne. mais mais mais mais ko liggéey. waaw li ko waraloon xam nga boo gisee artiste buy bomb. di bomb di yëngal toog ba càgg gisatoo ko. dafay loolu day jaaxal àdduna. ah parce que dañ doon naan Pape Ndiaye dafa am crise de folie euh, pour bañ a a jaar ci bureau wax ji ci. waxal waxal waxal gars dafa dafa dañ ko liggéey dafa def. Mm-hmm. truc du genre tout le temps fan si sax am na ñu demoon ba ci commencé jooy am lu lay metti. loolu am lu amoon la wala wax ay wax la. waaw no parce que sama carrière. Mm-hmm. dafa am lu bëri loo xam ne daf ci gane si loo xam ne nit ñi xamuñu ko. Mm-hmm. ndax man instant bi ma génnee cassette bu ko ràccati. li gën a jaaxal nit ñi il faut que ñu ne kii dafa dof loolu moom mënta ñàkk. Mm-hmm. ndax mun naa wax ne looy xëccoog àdduna artistes yi nga xam ne artistes yi nga nekkal àdduna bi yëpp si fi tey fi mu ne nii Sénégal. Mm-hmm. li ñuy xëccoo mooy nekk number one. Mm-hmm. man ma yàlla def ma génn kasetu taasu Pape njaay coppet ku nekk loolu ñu yéen fekkee ngeen ko li may wax nii ñi may seetaan ci télé yi xam nañ ko ay témoins yu leer loo xam ne mën nga ci teg loxo. ma génne kaset bu ko Cati àdduna yëpp ma bouleversé marché bi marché bi dama ko jaxase. absolument jaxase Europe jaxase adduna bi fépp. foo daawoo toog waaw daa ma toog ba jaxase réew mi ci koo xam ne taasukat la. jugee ca fecckat loolu daanaka dafa nekkoon loolu loo xam ne. dafa dafa mën naa la wax ne lu yéeme la. ma ñëw cër bi nga xam ne moom la taasu amoon jamono yooyu bi may bi may doog a dugg si. dama ko yóbbu ci niveau boo xam ne. même sax dem naa ba mujj gi les chanteurs ils ont obligé pour ñu dem ku ci nekk wut awkat sa ginnaaw sinon boo woyee yow kese du baax. parce que boobu taasu bi demine na. absolument loolu moo waral après mujj gi ta woykat yëpp ku ci nekk ut nga taasukat sa ginnaaw. mais est-ce est que loolu moo tax. non non non après affaire boobu bi mu amee dama lay expliquer buzz boobu moo am maanaam doole boobu. ma amoon nga xam ne ñëpp moom la ñuy wut. Mhm. ci jamono yooyu doole boobu képp kuy dund ci aar moom ngay ñaan. képp ku ko am ak ku ko amul moo tax ngay sonn di jóg di répété guddeeg bëccëg. suñ borom defal ma ko. may ma xolu doomu aadama yëpp. may ñëpp bëgg ma may tëgg soirée ci taasukat may tëgg soirée boo xam ne maanaam ci stade laa koy tëggee muy fees della ay concert xam bu ma duggee Europe dañuy naan fii xalaatuñ ci woon ah ab taasukat def ko nii. léegi man ci fi muy safee noonu. ma ne leen damay bàyyi. loolu boo ko waxee koo xam ne looloo ko yitteel danaa la dangaa dof. est-ce que ne ko dañ la xabtaloon. Ah mhm. loolu parce que dafa amoon ay cause jamono yooyu. Mhm. li waraloon loolu mooy man dama dem ba ci digg bi. Mhm. xaj na am na foo xam ne bu ma fa duggee dafay xóot. mais nga cofal ci parce que euh, borom xel yi tamit dinañ comprendre. waaw borom xel yi dinañ borom comprendre. parce que am na benn instant boo xam ne. Euh, dama bëggoon a xool tuuti ci sama wàll ni may doxee ci sama diine d'accord comprendre nga mhm. léegi euh, ci diggante boobu noonu jamono yi nga xam ne moom ci lay perse dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg noonu mhm. may gis ay affaires yoo xam ne vraiment àndul ak sama diine ci soxorante bi yow yaa ko doon def wala dañ la ko doon def non man man dañ ma ko doon def d'accord man mosuma taxaw musuma taxaw mhm. ci sëriñ ne ko defal ma diw sàngam nangam. kon si je comprends bien moment bi ngay def bés nga daan gis ñu lay def yu méngoo la diine. waa non waaw parce que boo gisee ma wax la loolu mooy daan naa gis ñoo xam ne ay soppe jëmmi soppe lañ ma wonoon jëmmi soppe. ndax jël leen taf leen sama kaw. Mm-hmm. mais diiru bi ma amee bi ma amee succès boobu. Mm-hmm. mujj nañ doon ay ennemis sama kanam. yor beneen jikko ak beneen ala beneen. ko ci muy sax la fay. loo xam ne. c'est loolu nit mën naa wax ne nit koo xam ne day raisonné sax waru ko def waxuma laa koo xam da nga ne jullit nga. Mhm. am ñoo xam ne dinañ loolu noonu noonu goo xam ne yow da lay dépassé doo xam sax pour lan. ok. mu leer na yow dugg nga ci nag dugg nga ci beneen kanaal mhm. ndax gars yi yërëmatuñ la. xam nga da nga ci ngay sax comprendre ne. Mhm. nit ñi. balaa ñoo mën a doon sa xarit nga torox. mais keroog ba nga xawee ñu xool ne la maanaam changé nga benn montre bu bees rek am na ñu ci amul xel dañ lay iñaane te loolu c'est très dangereux ma xam ne comme affaire bi milieu bi lii moo ci am mm-hmm. il faut ma xool carrément lan mooy dëgg-dëgg droit chemin mm-hmm. d'accord fi nga xam ne boo fay aw mm-hmm. leer na maanaam lii ngay fi ngay dox dëgg la parce que lii li ma gis nii ñu doxee ni du dëgg parce que mënuma ànd ak yow nga nekk sama waay ñuy ñuy Euh, ñuy ànd guddeeg bëccëg nga naan ma saawaay yàlla na la yàlla yokk. Mhm. saa saawaay bu déwee ne fi nga toll yàlla na nga ko weesu. nga xëy mhm. loolu am. Mhm. kooku nangootu la sax seet si. léegi yow si je comprends su ma résumé. bi loolu amee da a bàyyi musique dem ci di concentré à 100 pour cent ci sama sama ci li nga xam ne leer na ma ne am na logique xam nga euh, li te dama ci sentir ne maanaam dafa nekk course boo xam ne. doo raaw mukk ndax man. dama doon dem ba ci digg may gis ay sondage yoo xam ne damay toog ba càgg raw ay nit. ay raw ay nit maa leen maa leen raw ci lépp. di leen gis ñu leen di jëleen teg leen sama kanam mooy muñ loolu di ko daw ay at at at. mu leer ma ne course bi amul sens parce que lu tax amul sens yaa ngi daw ci course boo xam ne doo jël pay. moo ngi mel ni loolu gars yi naan booy dangay ngay lay da lay ngelaw. Ah. kuy lay ngelaw. Mhm. wala ngay dëbb ndox. kooku mhm. doo am ndam. te eh, course boobu loolu moo fa am. parce que dañuy jël ndaare yi bugg ko def pay. mais est-ce que yow fi may est-ce kon jàpp kon jàpp nga ne laaloon nañ ma dëgg yow. waaw maa ngi ñëw rek ci biir waxtaan dama lay bu xañ ne dinañ toll foofu. Uh-huh. bi ma demee ba xam ne lii du loolu. Uh-huh. yàlla def ci jamono yooyu. Uh-huh. loolu maa ngi koy doog a wax télé. Euh, parce que am na ci yoo xam ne dafa bëgguma ci di dugg tout le temps. waaw waaw mais dañu xam ne dafay yoon tamit ñenn ñi. Mm-hmm. parce que wax jaa ngi juddoo fu ne pap. ñu bëgg nag ñu leer. waaw jamono jooju. ma toog ba jàgg daal. géntoon naa fi géntu ma gént maam Bamba Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba maam Cheikh bu ma ko géntee mhm. affaire bi vraiment def ma am na lu ma def daal am na fu la laal am na am na fu ma yóbbu mhm. léegi nag ci diggante boobu noonu mhm. yàlla xam na ne euh, ma jugee fi dem de di di jéem a gëstu loolu jaar naa fi sax fu ñu wax naan benn kër euh, sëriñ bu ñu wax Seexu Njaay Kaolack euh, maa ngi nuyu famille di nuyu. kër Cheikhou Ndiaye bu nekk diggante Medina ak Jalañ. waaw waaw ma dugg foofu maa ngi recherché Serigne Touba mm-hmm. parce que man lu may dugg dama ko dama damay bëgg am yokk bi. man bëgguma nekk ay muri mm-hmm. ay mëri ay mëri waaw ay mëri rëndoo. Mm-hmm. que Serigne Touba dama bëgg a xam lan mooy dëgg-dëgg Serigne Touba ma jëm ko dund quoi. sinon du ma perdre sama temps ci lenn. absolument bi may jàng bi may jàng sabar jëm naa fexe ba nga xam ne ku ma déglu tëggkat bu ma déglu. da nga xam ne kii tëggkat la. waaw léegi bi nga bi nga ah. géntee bi nga génne leen géntee maam Cheikh Fall ak Serigne Touba ba dem ci Cheikh léegi nag après ma dajeek ay Baye Fall ci diggante boobu noonu mm-hmm. ci laa ànd ak ñoom dugg si loolu vibes Baye Fall vibes xale yi fii nii musique bi mm-hmm. xale yi mm-hmm. bi may ñëw amul woon vibes boobu maa fi njëkk a incarné Baye ak kan du ma du ma du ma maam góor jasaak maam góor jasaak waaw li ma yegsee booy xool ose bi mu bi bi ma ñëwee bi ma ñëwee déjà bi ma dugg seen Ndakaaru ak absence bi ma def def naa absence un mois ci weeru koor laa dem dox lool te bi ma defee absence boobu ma def noonu yàlla def bi ma ñëwaatee gars yi defe ne dama dof d'accord ndax li tax ñu defoon ne dama dof. Mhm. mooy dama yegg si. Mhm. yu ci bëri yoo xam ne maanaam ñoom dañ ko yen woon man. faale nga ko. parce que déjà instant boobu artiste warta génn warto def buzz ba pare di génn def ay un mois ci mbedd mi affaire ndax chaque jour play baggee xaalis baa ngi teew. Mhm. ba pare ñoom ñu ñëw di fa oto teel toll nit ñi tollu ma fa. fa mhm. kër toll nit ñi tollu ma fa teel waaye war nañ ko am na. Mhm. bien sûr war nañ ko am mhm. mais jarul ma def lu ñaaw jarul ma wax lu ñaaw tey ñu ma wooyee mu xam ne lii du jur jàmm ma romb dem sama yoon ki xamul danaan kii dof la mais man xooluma li nga may jox mais li muy jur ëllëg laay xool. kon yow dama jëloon bi teg ko ci beneen position boo ko tegal woon au bi comme. au début waaw waaw au début da nga ko tegoon ca kaw. waaw mais bi nga demee ba nga ne. maam maam am hmm. da ngaa jël musique teg ko feneen foo ah. hmm. ma jugee foofu kër Cheikhou Ndiaye hmm. jugee waat fa dem kër ci ci bi ma fa demee am na instant boo xam ne mu fa duggee. sama papa dafa ma jël si dañ ma doon jël ma instant nag. Euh, bu ma toogee affaire bi sonn dama ñëw sama yaay na ko sama dama ñëw te ko tàgg ko na ko papa dama bëgg mhm. dama gis bëgg instant bi dama bëgg gis sëñ Saliou. Mhm. bi ma ko waxee sama papa sama tegu si baat. Mhm. fekk am na tamit góor gu baax ku nekk Kaolack bu ñuy wax sëñ Cheikh Mbacke Diouf. ba ma ñëwee expliqué ko affaire yooyu. mu ne ma nañ dem moom moom moo njëkk yóbbu ci sëñ Saliou. ba yàlla def sama diggante ak sëriñ Saliou lu baree lu bari loo xam ne loolu ñu nekk ci biir kër ga bëkk néeg ya mhm. ñoom ñoo ko mën a wax loolu sama yoon nekku ca mhm. ma ko loolu xaj na sax télé bi ay at loolu bi ma koy dund ay at la sañoon tey bés penc ci lay feeñ mhm. waaye nekkul loo xam ne war naa toog ci ay télé di ko wax di ko wax man damay rus sax toog ci télé naan Serigne Saliou nangam ak nangam ak nangam ak nangam même bu ma koy waatee daf may rëcc. Mhm. mais lépp loo xam ne maanaam baat mbir yooyu la dama koy dama koy du ma ci bëgg a. doo ci dugg absolument waaw damay bëgg a waaw. Mhm. ndax loolu. leneen la daal. leneen la. Mhm. ndax sëñ Saliou dafa amoon lu mu waxoon laata mu fee jóge dana lu lu dul diine. ah ak lislaam aw ma ci yàq aw ma ci defar. kon kooku am lu bëri loo xam ne wax na ko. kon man duma jël kilifa gu toll noonu. di ko waxee caaxaan di ko foyee caaxaan wala di wut bës ba koy mbubboo du ma dox ci loolu. d'accord parce que kooku xam naa mooy kan. doxul ci daray caaxaan. doxul ci dara lu ñàkk fay fayda. ku bëgg bës da koy wutal sa bopp. yaa xam nag noo koy créé mais du jël dama jéem a di jéem a ay làqoo sëñ bi. ci loo xam ne amul. après bi loolu amee bi nga demee ci sëñ Saliou commencé am ay changement changement yooyu nag moo waral ñu bëri nag defoon ne sax. waaw kii neexul hmm. parce que changement yi yooyu mooy liñ doon yu yi di xëccoo ba mu jarale ñuy tamante. Hmm. man ñi du ma ko def. parce que parce que sëñ Saliou déjà boo jàngee ci sëriñ mbindum sëriñ Touba rek. Hmm. dina la xamal ne la. ndekete kii ngay jàkkaar lool journaliste bi ngay jàkkaar lool. gënoo ko gënu la. Mmh. ndekete waroo jàkkaar jàkkaarloog moom di ko yàq. waxu balaa nga koy def lu ñaaw. d'accord xam nga déjà loolu boo ko commencé amee rek. Mmh. boo dugg seetee Ndakaaru. Mmh. ña nga yaboon dootoo leen yab ña nga doon tooñ dootoo leen tooñ. kon maanaam pecc meeg woy bi taas mbaq rogin tey ak na daan mel bët de seen bi da nga koy ba. non non euh, loolu. loolu loolu bi ma ko doxee pare. génne wa naa fi ni ko réll parce que gars yi bi ñu wax commencé indi ay solo slogan di wax lu leen neex. ngir yàq parce que boobu ban dèjà am na ci côté boo xam ne wax dëgg yàlla. Ah, euh, mooy comme démb émission bi rek biisu wax na ko. ne yow démb sax laa koy doog seetaan. dégg nañ la yow boo boo yéegee sax doo nangoo wàcc. non demeewul noonu. parce que gars yi parfois dafay ci am ñoo ñoo xam ne woon. bu ma ñëwee concert. dañ naan. na Pape Ndiaye njëkk a joué pour di ñoom dañuy jéem a jaay affaire de grand star. xam nga. grand star la ñuy jaay booy ki njëkk a joué kooku mooy petit star bi. <laughs> d' accord xam nga selon ñoom quoi. selon ñoom. Mm-hmm. boo njëkkee joué rek yow suufee nga. Mm-hmm. léegi man man naa amul problème man mun naa ñu ko mm-hmm. léegi nag man ma xam naa ne moom gis nga sama benn morceau ba xasee ba dal public bi kenn mënatu leen téye. léegi nag ñoom dañuy am na ci artistes yoo xam dañu xam ne lii bu wéyee ñoom bu ñu yéegee dañuy duñ duñ amati ñu am ci kaw seen bi. Mhm. ndax kii dèjà bi mu commencé dóor rek gars yi commencé nañ am problème public bi bëggatuñ wàcc. Mhm. léegi bu ko defee ñoom ñu yónni seen i manager mhm. ne na njaay wàcc. te foofu boo fekk ne public bi coowoo ko bëgguñu ma wàcc. te man xam naa tamit ñoom ñu li tax ñu yónnee xam naa li leen li leen di déranger parce que xam na ne bu ñëwee duñ fi fekk dara. benn bës dama joué ba pare ma wàcc. Mhm. ma yëngal sama bopp ma ne day ndeysaan xol bi ma am nii est-ce que ñëpp am na parce que man am na morceau boo xam ne bu ma ko laaloon kii yéeg day am problème mu obligé wàcc parce que bi ma dugg see li ma teg. Mhm. saal bi dafa dafa dafa commencé woon bu la maanaam jaxasoo. jaxasoo Pape. waaw dama lay tegal. Ah, ah, léegi léegi ñoom ñu teg loolu. Mm-hmm. ñu teg loolu pour comme lay. Mm-hmm. ne bu bu yéegee du waat mais bu fekkee da nga yéeg xam nga ñun suñ émi comme émission bi ñu defoon keroog fële 2S. Mm-hmm. mais bi ñu yéeg lan moo tax ban heure lañ euh, euh, ban heure lañ yéeg. 22h. waroon a wàcc kañ. 23h30. est-ce que public bi bëggoon nañu wàcc. déedéet ñàkk public boobu ñàkk bëgg ñu wàcc moo yóbbu émission bi ba ban heure. ba 2 du matin waaw. ba Omaro annulé émission am ñoo fekk si ñu. voilà. xam nga déjà bu fekkoon dañ ko tënk ci maanaam yéeg ak wàcc ak Omaro lu bëggoon ñu dañuy wàcc. Mhm. mais public bi parce que bëgg. ak téléspectateur ak téléspectateur yi. Mhm. ñoom ñoo bëggul affaire bi dàgg. Mhm. parce que liñ liñ soxla ñu ngi leen koy jox. te ñoom absolument léegi déjà euh, ñu def loo xam ne wanewaat na fa beneen mbir. Mhm. mooy téléphone yi sonné musta am ci émission boobu kon ñii ñii liñ leen di jox moom lañ bëgg. d'accord kon Pape gannaaw li ñu li nga wax ñu ngi tënk ko yëpp pour ñu mën a dem ci beneen beneen yeneen yeneen question est-ce que mën ñoo jàpp ci réponse bu gàtt rek. Mhm. que dañ laa fexeel. waaw du mu du ma ne ñàkk na ci. parce que xam nga lu mel ni milieu bise comme bisu barki de Ndiaye expliqué na ko ci. Mm-hmm. maa ngi koy ah, nuyu. waaw na ma na waaw def nañ émission bu naaj boo xam ne àdduna bi yëpp ñoo koy saluer mu nekk lu naaj. waaw ñun ñëpp ñu waxtaanee ci loo xam ne luy jëriñ askan wi la. Mm-hmm. mais bi ma demee bañ ñamaa daray diine amu ci. Mm-hmm. te ma gis ne ñi koy dund tamit. ñu ci bëri gëm nañ ne daray diine amu amu ci damay damay retiré wu. kon dañ laa kon jàpp nga loolu. waaw waaw waaw noo taxawal. xam nga dèjà lool rek. lool rek war na koo xam ne koo xam ne leer na la ne maanaam da nga bëgg diine. parce que yow boo nekkee taalibe moom El Hadj Malick wala man ma nekk taalibe Serigne Touba ki nekk taalibe maam Baye Niass xam nga lu ñu boole diine. te diine moo tax mënatuñoo gaañante diine te moo tax mënatuñoo waxante lu ñaaw diine moo moo ñu boole mooy moo ñu cramponné mooy seen bi ñu téye mm-hmm. ba mënuñ waruñoo def kenn war cee gaañ sa morom. Mm-hmm. waaye buñ demee ba ne daray diine amatu ci. Mm-hmm. kon foofu moo ngi mel ni la ma woyoon ca woy wa waa waa ni may ma tuuti rek moo mel ni la ñu woyoon ca woy wa ne ndajam til la golo loolu kon affaire bi loolu lay noonu lay demee fu yàlla amul nag baaxut Hmm. ma ma leen koy teel waxal. parce que mais ñoom amoon nañ chance parce que bu fekkee ne dañoo nekk ñun dañu nekk ay musiciens wala nekk ay showbiz mais suñu borom dimbali ñu nekk ci milieu mu mel ni Sénégal. Hmm. kon suñu borom dimbali nañu pour ñun ñu defee ko à autre manière de façon. Hmm. comme pas ñu ñu ñu bañ ko def comme les Américains. mais ñun ñu ñu ñu sénégaliser ko. ni ñu koy sénégaliser. mooy maanaam dañ koy def métier. d' accord donc ci euh, euh, kon leeroon na Pape neewoon na li ko doon wax ne xel mi daa dem xel mi demul woon. Ah, waaw non nekkoon naa ci bagage yooyu xam nga ne bagage yooyu mu ngi ci. Mm. yooyu dama la dama la ko mosal. ci ay yoo xam ne jot na jaar ci waaw jot na jaar ci sama sama sama sama sama life mm. mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. nga xam ne moo gën ñëpp. Mm-hmm. ku nekk xam ne jàpp nañ ko ci xaatim. Mm-hmm. ak bagaas boo nekkee cible. nga xam ne tey àdduna yëpp dañ naan ni diw laa bëgg a mel. am na ñoo xam ne bu ñu dugg ci bu ñu dugg ci taasu. bëgg ñu mel rek non non liñ waaw référence. Mm-hmm. te liñ bëgg mooy sax daaneel Pape parce que pour fi ñu bëgg a toog. ki dem ci làmb ji boo amee fulla roi des arènes moo ko ere absolument voilà roi des arènes bi nag ni ngay def ba daanee ko mun di nga ko lijjanti. d'accord waaw ginnaaw dégg naa say wax sànq. kon du ma du ma dàq. Mhm. njabar. du dàq yooyu nga xam ne maanaam. waaw kon ci keroog ci gën ci tënk rek nekkoon nekkoon nga ci say bagage mu jaar sa dund. waaye tamit teewut am na leneen lu ci laxasu loo xam ne mystiquement. na donc donc mais léegi ci ci laxasu yooyu na ci euh, nga jóge parce que wax nga yaa fa nekkoon y d' artistes euh, gis ni parfois ñi ñu génnoon album ñi toog di xaar. Euh, wax nga loolu bokk na ci li tax yow itam ñu gëj laa gis yaa ngi Prince Art ba war a bàyyi nga.